léegi nag ñu ne toll nañu foo xam ne dañu war wàcc ci suuf wax kook ñi koy dund mu mel ku ci mel ni jigéen ñi donc bu jigéen ñi lëkkaloo mën a waxtaan mën a xool li nga xam ne moo war ci ñoom pour jafe-jafe yi ñuy jànkontee ci changement climatique bi ñu mën leen ci jàppale donc ñu waxal ko seen bopp mën a wax ak universitaires yi nga xam ne ñoo yore solution yi maanaam yu mel ni ay GIEC groupe yooyu ak yeneen groupe yu nekk fii ci Sénégal nga xam ne seen xalaat yi ñuy def ak seen pexe yi ñuy def ñu mën a jël jigéen ñi def ko ca kanam gën a xalaat pour jigéen ñi ak ndaw ñi nga xam ne ñooy gën a jànkontoo changement climatique yi. donc euh, li ñuy wax naan justice climatique boobu donc dañu nekk ci jamonoy droit donc ku nekk dañu naan droit à ceci droit à cela donc bu ñu naan justice climatique ne changement climatique dañu jàpp ne jigéen ñi waruñu leen ci fàtte tax dañ cee am droit donc ñëpp ci am droit ah.